léegi waroon am droit de réserve génn def point de presse pour jéem indi ay leeral en tant que justice loolu naa ko mën a def hmm. <laughs> lu la mën a def. waaw laaj bi ñaari pàcc la bu ci njëkk moom mooy indépendance su justice bi xam nga fii indépendance su justice ci yoon fii suñu justice moo waroon a gën moom boppam que yenn dëkk yi comme France ñi nga xam ne ñoo ñu bàyyil texte yi hmm. euh, parce que boo jëlee constitution Sénégal comme ni nga ko waxee pouvoir la fi. boo jëlee constitution wu France bu 1958 autorité judiciaire la ñuy wax terme autorité la ñuy utiliser mu ngi mel ni autorité wu marché public yeeg yooyu tout ça pourtant ñoom dañu moom seen bopp am seen doole loolu lu koy wone tey moom mooy tey nan nga mën a gëmloowee citoyen sénégalais bi que justice bu ñu am dafa moom boppam alors que procureur yi tey xam nañ ne seen njaatigee mooy ministre de la justice. Mm-hmm. ministre de la justice boobu bokk ci parti politique. waaw am lu mu namm. am ay ambition am aussi ñu mu teg peut-être bët d'une certaine manière. Mm-hmm. et que ñooñu tey président même bu suba bu amee audience euh, bi tribunal euh, mais procureur. Euh, donc ministre de la justice mooy bind ne ko nii nga war a waxee ci bésu audience ba sa waay lu ko wax comme lu ñuy wax la parole est mais la plume est acerbe donc maanaam boo taxawee lii la ministre de la justice yónnee noonu nga ko war a liiree doo ci changer benn virgule mm-hmm. bu la neexee boo tegee kayit bi nag ba pare mm-hmm. nga wax lu la neex dégg nga donc foofu moom la justice su Sénégal toll léegi nag yenn dossiers yi jàpp nga ni tey est-ce que procureur dana ñëw di ci ubbi te ministre de la justice waxu ci ak président ba président joxe ay instruction donc loolu tey bu ñu bëggee mbirum justice mu bañ a nekk discours chaque fois autorité dañuy ñëw naan indépendance de la justice mbirum indépendance de la justice bi moom mooy foog ñu dindi tutelle bi tey ko ci yeneen dëkk. Mhm. ñi dañu commencé woon aussi conseil supérieur de de la loolu lu ma ci proposé moom mooy tey. Mhm. non seulement bon renforcement conseil supérieur de la magistrature bi yooyu yëpp ñëpp xam nañ ko gis nañu. Mhm. position wu euh, union des magistrats bi colloque bu ñu organisé woon en 2017 def nañ ci ay jàngat yu am solo mais surtout tey bu ñu bëggoon suñu justice dox. du am nekk si justice ku ma am ndey wala ma amul ndey lu ñu war a def moom mooy tey daa am ay juges yi nga xam ne. kenn mënu leen a déplacer moom la ñuy wax ay juges yi nga xam principe de l'inamovibilité mm-hmm. ñoom dañu indépendant mais kenn mënu leen a jël rek ne leen affecté nañ la Tamba xam nga borox gis nañ fii kenn pour jëmale sanctionné donc ñooñu procureur yi mm-hmm. tey bu ñu bëggoon justice mën a moom boppam dañuy def que procureur yooyu dootuñu dépendre ci ministre de la justice du doon seen njaagi mm-hmm. njaatigee benn ñoom ñu moom seen bopp ñu moom seen bopp mais ñaareel bi moom mooy ñooñu tey ñu jox leen garantie d'indépendance ba yóbbu tey procureur kenn mënu jële jëlee. Mhm. kenn mënu la jox instruction. maanaam jox leen sañ-sañ bi war. nga mat sëkk. d'une mhm. certaine manière foofu nag justice bi bu ko sénégalais bi saytoo. Euh, dana ñëw gis nañ ñi ah mën nañ jàpp ni raisonnablement procureur moo jël initiative mais li ngeen fiy dégg yëpp ci initiative procureur en réalité ay ordre exécutif kon kon ça veut dire que bon parce que effectivement kon daf ñu yóbbu ne Serigne Bassirou Gueye point de presse mu doon organiser keroog parce que gis nañ ne deux ans ñu ngi ko ciy tuumal mais keroog dafa jékki-jékki daal di génn mhm. génn bi sax ñu ngi posé la question lan moo tax mu génn mhm. ak kit bu muy wax lan moo tax muy wax ak kan lay wax ndax waxul lu ëpp ci dossier bi aussi waaw loolu parce que am na sax ñuy demandé à ce que vraiment moom moom rek moo mën a xam kan moo tax mu wax conseil de discipline mais nee na moom moo ko wax ma dégg ko ci information yi que dafa jot ay pression pression yi lan la fan la jógee nee na ak yeneen pression mais lu ci mënti am moom mooy euh, en tout cas euh, man suivre ma conférence boo mu jeex benn extrait laa ci gis ci journaux yi hmm. mais lu yoon wax moom mooy tey xam nga mbirum procureur yi génn di wax sax farlu woon ñu ko woon di am hmm. même France bi nga xam ne ñoo ñu bàyyi système bi Euh, donc parce que droit Sénégal mënoo ko wax te waxoo France. Mm-hmm. malheureusement mm-hmm. <laughs> suñu passé la suñu histoire la. Mm-hmm. Euh, donc ñoom bu njëkk procureur yi doon ñu woon wax mais dañu nekk ci benn société bi nga xam ne dafa évoluer bu njëkk ay États-Unis nga doon gis ay procureur di wax di def ay conférence de presse et tout ça mais foofu procureur yi dañoo moom seen bopp dañu leen di élire ay dañuy voter pour élire procureur de la République mais fii ñoom dañu commencé ci at yi passé France commencé communiquer surtout affaire u attentat yi terrorisme beeg xeexu djihadiste beeg yooyu dañu jàpp ni dafa am benn droit à l'information maanaam bu dossier amee euh, donc dafa am conflit entre secret wu enquête bi mais aussi citoyen bi ci boppam saa yu yeewoo war na xam benn information bu complexe euh, bu complète bu fiable ak bu sincère d'une mm-hmm. certaine manière bu ko procureur jàppee ne ñu ngi wax ci benn dossier loolu moom yoon may na ko malgré la fait am na obligation de réserve uh-huh. mu génn jëlaat guy yi delloo ko ci diggu dëkk bi ça veut dire quoi il doit juste parler des faits mais objectivement uh-huh. yoon def ko tere mu def commentaire yoon def ko tere mu ne kii moo def wala deful yoon def ko tere aussi mu tenir ay propos yi nga xam ne comme nuñ koy waxee sa porte atteinte à la dignité de la fonction parce que procureur waruñu ko dégg ci wax ju sew warul teesante parce que du cëram d'une certaine manière état la transition lay doon ndax euh, procureur Serigne Bassirou Gueye mu ngi doon wax ci dossier Sweet Beauté Adji Sarr ak Ousmane Sonko metre dossier bi yaa ngi koy suivre de près boobu ba léegi ay kaddu yu bëri jib na fi wàllub yoon waxtaanee nañ ko fi teg nañ ko ci penc mi ay ñooñu Ousmane Sonko jàpp ne yoon dafa jeng ba tax na Ousmane saay bu teeri jee ci yoon mooy euh, carrière yaram jeex na ci wàllu politique. waaw dossier bi lu muy wone comme lu ma ko waxee rek moom mooy suñu justice dafa feebar feebar bu tar maanaam hmm. euh, feebar walla mettit yu nekk ci justice bi yëpp la ñu gis xam nga souvent boo waxee ñu ne la non suñu justice mu ngi dox normalement et que mbirum euh, dossier politique yi matul sax pour cent c'est vrai mais sénégalais du tous les jours day dund ba dee du mos a dem tribunal du xam nan la justice di doxee donc fu occasion bu am pour gis nan la justice parce que dañuy ne justice bi c'est rendu au nom du peuple maanaam ñuy koy wax ñun la ñuy waxal ñun la ñuy atteel foofu mm-hmm. moo taxoon d'ailleurs fii même ci cour d'assises yi nga xam ne moom lañu supprimer indi chambre criminelle bu njëkk juré mënoon nañ jékki rek xool ci liste de euh, liste électorale yi wala ne la yow da ngay siéger tel dossier te obligé nga dem donc parce que dañu jàpp ni en tout cas ci euh, tour askan bi lañ koy rendre mais boo ñëwee xool tey comme lu ma ko waxee dossier bi dafa wone nan la suñu justice sooke ci ci anam yu bëri nag mhm. tey dalay won euh, ci déroulement wu enquête bi ci yenn point yi mais aussi perception sénégalais yi ñoom ci benn dossier bu ñuy suivre étape par étape. Mhm. ñu war ci jàng parce que justice nekkul rek décision ba. Mhm. mais ci apparence bi ci déroulé bi. Euh, citoyen dañu war a gis ni en tout cas étape bu nekk ñu ngi yoonal ñu ngi yemale. ñoom tam ñu ciy jàng ba suba loolu mën leen dusiade ñu def parce que xam nañ ne ñun ñëpp a yem ci loi boo defee lii lii moo lay xaar duñu certaine bañ mais fu may jeexale moom mooy boo xoolee loolu yëpp tey euh, mbir mi dafay tey xel parce que da ngay gis benn ay éléments yi nga xam ne dafa am ay éléments de déséquilibre d'une certaine manière. ok nekkuma ci dossier bi mënuma ci wax mais en tant que citoyen di nga gis ni effectivement avant ñoo wax Sweet Beauty bi wax nañ fi yeneen dossier gis nañ fi ay liberté provisoire yi nga xam ne dañu mujj a nekk ay liberté définitive gis nañ ay dossiers yi nga xam ne ñoom ñoo jiitu woon. ba sànq ci suba kenn waxatu ci kenn yéetu ci kenn yàbbiwu ci lu tax benn dossier mu gaawee noonu donc loolu aussi day tax Sénégal yi seen xel tey par rapport ak dossier bi aussi ñu waxtu ci taxawaayu doyen des juges parce que gars yi dañ ne en général que euh, viol la ñu toppee Ousmane Sonko loolu la wax te ci wàllu xam bon ci li nga xam moom la gars yi jàpp dañ ne ne viol di koy attestement du certificat médical arek gars yi gis ne ne certificat médical par rapport à gars yi jëppoon ni kon doyen des juges lañu doon xaar ci moom mooy mu décerner mbir yi yóbbu ko non lieu mais pas mu koy renvoyer procès. waaw xam nga juge moom comme ni ñu ko waxee sànq ñun dañu bëgg ay juges yu moom seen bopp man mënuma dugg ci ay affaire certificat yooyu parce que boo ko waxee rek mooy yaa ngi wax ci dossier bi man nekkuma ci dossier bi mais quand même certificat de médical maître mooy attesté viol quand même. waaw ci wàllu yoon bi nga jàng. waaw du loolu kese du loolu kese. Euh, mbirum certificat xam nga mbirum viol yooyu yëpp. Euh, ñaar rek xam li am. Mhm. mooy ku ñuy tuumaal ak kuy tuumaal. Mhm. xam nga médecin. Mhm. mën na ñeme yàlla mën na aussi nekk ku maandu. donc amul benn élément bi nga xam ne mën nañ ko jël seppi ko rek ne moom dooy na pour euh, lépp leer d'une certaine manière donc parce que mbirum viol dafa bëri ay xeetu viol et tout ça yooyu tout moo tax bare la mënuñu dugg wala ñu généraliser loolu atte rek moo ko mën a leeral par contre doyen des juges yoon moo ko may dafa moom boppam. comme ñu ko waxee. Mm-hmm. Euh, du moom magistrat ñaari pression lay résister. du pression pouvoir bi kese. mais pression aussi askan bi la peuple bi parce que des fois yoon lu muy wax ak askan bi lu muy bëgg du méngoo mais indépendance bi foofu aussi la koy wone oh, waxuma pour kaawu dossier bi mais de manière générale d'une certaine manière yoon moo la may aussi nga saytu ay éléments à charge ak à décharge d'une certaine manière léegi yow yaay taataan nga xool est-ce que ndax éléments yi nga xam ne ñooy wane ne lii am na wala yaru na maanaa wala en tout cas yi nga xam ne ne na ne lii amul lan moo ëpp nga teg ci balance bi comme image de justice bi bu demee ci charge nga renvoyé bu demee ci décharge nga def non lieu mais lu ci mënti am aussi yoon teg na ay procédure boo jàppee ne juge bi lu mu def teguwul ci yoon yoon may na la aussi nga joytu ko ci yeneen ëttu attekaay bi nga xam ne doo dootul nekk benn juge mais ñaar wala ñetti juge ñooy toog saytu mbir mi donc euh, amul benn hypothèse bi nga xam ne suñu texte yi prévoir uñu ko par rapport ak dossier boobu sax par rapport ak décision boobu nga xam ne doyen des juges jël na ko gars jàpp na Ousmane Sonko dafay def procès dañ cey gis benn discours bu xaw a radical boo xam ñu ngi ko nemmeeku ci Ousmane Sonko mm-hmm. di ko nemmeeku aussi camp pouvoir bi parce que Ousmane Sonko dafa ne moom xel xalaatul ci àdduna muy dem wuy ji fii la mën a yem ak justice. ci bile dossier kenn du ci kenn du ko ci ay naataangoom mi ngi def ay point de presse su ne di menacé. Mm-hmm. à ce que Ousmane moom xel xalaatul ci àdduna muy dem wuy ji mais waxuma sax ndax dina dem wuy ji wala du wuy ji bu fekkente ne Ousmane Sonko yoon woote nañu procès mu dem lan moo ko si nar a fekk. waaw euh, en tout cas. lu leer ba ñaari casquette nga fi ñëwee ah. <laughs> ñaari casquette laa fi ñëwee. dinaa ci tontu dinaa ci tontu. Euh, bu ci njëkk moom mooy li ma jàpp moom mooy euh, quel soit en tout cas dossier bi. Mm. fii euh, amul lenn lu mën a justifier ci démocratie radicalité walla violence saa yu ñu demee ba nekk ci posture boobu rek moom mooy jënd nañ pàccu démocratie ñu ngi ci beneen état donc moo tax ma jàpp nii muy pouvoir muy opposition foog ñu dalal. foog ñu delloo si xel yi. Mm-hmm. parce que amul lenn li nga xam ne am na fi te ñun suñu institution yi mënuñu ko réguler lu des moom mooy ñu teg ko ci dëgg. dox ko aussi ci fit ñi nga xam ne ñoo yor dossier bi ñu demee fit mm-hmm. moom mooy ñu indi dëgg parce que ñu saytu xool fan la dëgg féete mm-hmm. mais lu mën a am moom mooy tey fii Sénégal sànq ñu ngi ko doon wax ci bourse de sécurité sociale yi démocratie état de droit lenn moo ko lal moom mooy loi yemale ñëpp loolu mooy égalité des chances égal accès à la justice mais aussi égalité bu la yoon woowee nga nekk ancien président de la république nga nekk postulant wala aspirant wala prétendant yoon bu la woowee rien que pour wane sa citoyenneté à tort ou à raison yaa def wala defuloo da nga war a dem taxaw man loolu laa jàpp benn léegi nag loolu expérience juriste beeg avocat bi mooy wax mhm. euh, bu dee yoon woo la wuy jiwoo mais sur la base des seuls éléments yi nga xam ne ñoo tegu ci taable bi yoon dana continuer def liggéeyam et par expérience moom mooy danañ la condamné te danañ la teg boo moytul le peine maximale bi maanaam lu yoon prévoir. Mhm. dañuy dem ba jeex. dañ koy ful maanaam bu demul. non <laughs> damay wax de manière générale. non c'est ma la ku ku yoon woo te demuloo et maanaam Ousmane bu amul sax amul sax lay. parce que maanaam bu ñàkk wuy bi gars voilà say avocat mënuñu jël parole bu dee teewuloo. Hmm. duñ jël avocat duñ jël parole. duñ bu dee teew fokk ndey mbill gi teew. waaw. Hmm. partie civile mën na bañ ñëw. Hmm. ka nga xam ne mooy porter mais ka nga xam ne moom la ñu jiiñ. dafa war a wuyu d'une certaine manière donc moo tax ma ne mbir mi du xadar euh, foog ñu delloo si xel yi béy woyagul mbuus euh, démocratie moo demee noonu ku ñu woo à tort raison yaa def wala defuloo euh, du moment où am na procédure surtout criminelle comme enjeu bi dafa rëy mm-hmm. li gën a yenu maanaa mooy xool ban stratégie procédurale nga mën a def en tout cas pour jàmmaarloog ñoom parce que boo jàmmaarloowul ak ñoom ci instant boobu c'est comme les prises d'otages mm-hmm. maanaam booy intervenir bu rater sa coup parce que boo ko rater souvent c'est irréversible d'une certaine manière moo tax précision lay laaj mooy demee ak sa xel donc moo tax ma ne foog ñu mobiliser intelligence collective yi. mais maître Amadou Ousmane Sonko junjoon yàggut euh, komplo politique ga ñu ne moo ca laxasu ndëgg sërëx yi nguur gi di di lal ci jamono ji ngir bugg ko fexeel ci wàllu politique euh, komplo boobu ndax euh, nangu nga ne moo am wala dem ko itamit am am am foo ko teg. man aw aw ma ci benn élément dossier bi élément yu ma ci am yëpp ci yéen laa koy jëlee. Hmm. ci presse bi hmm. comme citoyen hmm. léegi peut-être bu waxee ne complot moom am na fu mu ko teg bu waxee dëgg sërëx peut-être am na lu tax mu wax ko parce que comme lu ñuy wax ci olof euh, mag mu nekk sa xel doy na la mais lu ci mënti am moom mooy tey euh, même bu nekkee complot complot institutionnel la maanaam teg nañ ko ci raay léegi pour nga jàmmaarloog ñoom foog nga nangu wàcc ci raay sinon rek ñoom danañ la jëlaat def négocier Hmm? parce que récemment keroog débat bi Walfadjri doon seef ak Barthélémy Diaz mu ngi demande à ce que Macky Sall wàcce boppam ñu négociation mënul am. procédure ñu a apaiser climat bi quoi. waaw loolu euh, négociation dans le principe mënta am. bu dee weesu nañ ko. wala non c'est que même ay procédure dans procédure yi nga xam ne mënuñu ci. Hmm, def ay négociation bu dee da nga jël alalu nguur gi. code bi wax na ne bu dee yow avant audience bi def nga benn transaction nangu nga delloo si nga yooyu mën nañu mm. ci yooyu mm. tout sax mais daa am ay façon ñun fii suñu assemblée ñoom ñoo toog loolu moo tax du dossier bu ndaw d'une certaine manière il la raison bu taxawee ci yenn postures yi parce que sait qu'il joue gros d'une certaine manière ñu ne dañuy voter loi dañuy jël mbirum viol yemale ko ak rey nit xam nga fii mosoo dégg ku rey nit ñuy négocier ak moom amul donc bu ñëwee jëlee mbir teg ko foofu maanaam même dayo bi la ko yoon di jox même pen yi même kii lay prévoir d'une certaine manière donc bu dee tuuma yu mel noonu jot na ñëw na teg lañ ko nekkul li nga xam ne ci place publique bi wala militant yi ñoo koy régler ci li ma jàpp wala citoyen kooku comme ni ma la wax mobilisation ak sagesse lay laaj pour d'une certaine manière après Euh, tey comme nu ma ko waxee Sonko suñu justice la euh, procureur yi ñoom lu ñuy laaj jouru audience ba mais souvent <laughs> comme nu ma ko wax ci ministre de la justice en tout cas lay jóge wala danañ ci waxtaan ak ñoom seen réquisition ah non <laughs> lay doon quoi dans le principe mënu ma la wax ne dictée préparée la mais en tout cas mën <laughs> na fa jóge donc bu ñu jàppee ci loolu mën nañ jàpp ni peut-être Euh, ci benn stratégie d'apaisement mhm. dana am buntu pour ñoom peut-être bu dee bëgg nañu def rétro euh, pédalage comme d'une certaine manière mais avant ñoo yegg si foofu mais vi procédure bi avant procédure bi ci boppam tey am na ay armes yi nga xam ne ñoom buñ koo utiliser peut-être mën nañ ci am ndam et que lu nguur gi yi doon namm en tout cas peut-être bu dee complot la parce que man xaw ma ci dara je parle au mhm. peut-être loolu bu dee ñoom dañu amoon fu ñu ko bëgg a yóbbu pour sacrifier ko peut-être loolu mën na bañ a antu parce que euh, yoon en tout cas bu dee wane na boppam dox ci dëgg mais aussi teg ko ci fit. comme li ñuy ragal kon li ñuy li gars yi di ragal ci procès bi mën na cee bañ am. mais mais voilà mën na cee am am euh, jëlee fan tam aussi. comme lu ñuy wax ci olof euh, en français plutôt euh, le pire n'est jamais certain. mais mais mais beneen question bu ñuy bu ñuy bëgg a bu ñuy bëgg a aborder mu ngi soxla le cas Aminata Touré. waaw. tey rek journal Walf Walf Quotidien bi titré na ko ne ko nguur gi dàq nañ ko. Mm-hmm. opposition bi aussi bëgguñu ko accueillir. nanguwuñ ko uuf. mais loolu sax amul solo mais li am solo mooy que. la fait ko ñu dàq Aminata toure ci wàllu yoon ci wàllu yoon est-ce que yoon jo may na waa APR ñu daje mm-hmm. daal di dàq Aminata Touré en tant que député mm-hmm. waaw loolu man jàngat bu ma ci am moom mooy jaay doole la mm-hmm. teguwul fen muy Aminata Touré muy beneen député bu mu mënti doon tey wala suba ku ñu jaarale foofu booy dañ la jaay doole lu koy fëral moom mooy ci lu gàtt article 60 constitution dafa ne que ki nga xam ne mën nañ la teggee noonu ci sa mandat moom mooy député ba nga xam ne dafa démissionné maanaam dafa démissionné ci parti donc boo jëlee mbirum démission tey peut-être mën nañu utiliser beneen terme mais du démission parce que démission nu ko yoon waxee moom mooy un acte de volonté maanaam yow da ngay wone ne dama bëgg bàyyi ci parti bi génn naa ci. Mhm. danga ko war a bind date ko signe ko. waaye ñaari condition yooyu moom la ñu posé recevabilité. mais mënuñu ko déduir ci sa comportement wala ci say wax. ci sa doxalin mënuñu ñëw même tey yow. lu ñuy wax ci démission boobu c'est valable pour domaine yëpp muy parti politique muy entreprise yow boo ñëwoon fii Walf non loolu dañ ci yegg si boo ñëwoon fii Walf nga war a liggéey hmm. xëyuloo ñëwuloo ñëwaatoo ñëwaatoo mën nañ la dàq pour abandon de poste. wala leneen. mais kenn mënu la tuumaal démission. mënuñu ne ne ah saa waay kat gis nañ ko ci buntu Walf mu ngi taxaw. Hmm. mais duggul <laughs> donc jàpp nañ ne démission. donc droit dafa am précision ak clarté donc foofu la njëkk a wàccee yoon. mais aussi dañ la ne ci parti sa parti. donc moom nee na et puis ñoom dëggal nañu ko nangu nañu ko noonu. que ci coalition bi la génn mais kenn gisu ko donc da ngay jàpp ni conditions yu lo légales yi amut xam nga bu conditions légales yi amoon ñoom du ñu jéem a wiri naan ay jurisprudence mais même jurisprudence ci boppam bu ñu ko waxee wax ju yàqu la parce que jurisprudence mooy lu yoon àtte ba mu daanu frankulaay xam nga juge yi ñoom àtte nañu mbir euh, lu ñuy wax mbay Ndiaye ak Cissé mais yooyu du jurisprudence Macky Sall moo ko réglé loon boppam en contradiction lu mu def tey c'est-à-dire dafa jàppoon na ñooñu dañ leen tooñ et que lu ñu leen génnee waruñu leen woon génnee dañ leen war a jox ndàmpaay mu jox leen ndàmpaay donc loolu ci droit dañ koy woowee précédent li nga xam ne mos na am mais loolu mënula lie lier te mënu justifier violation wu constitution bii kaa kon fayantoo la mais jaay doole la comme lu ma wax. mais au jaay doole. bi. mais est ce que aussi Mimi Touré am na yoon am am na droit euh, pour yóbbu ci yoon état bu Sénégal. parce que mhm. maa ngi dégg sax mu naan dafa fas yéene réclamer affaire bi cour de justice de CEDEAO euh, bu CEDEAO. waaw su ko neexee parce que yoon moom ñëpp lañ fi nekkal. mais li ci doy waar mooy que moom dafa doon ŋaññ. <laughs> waaw loolu moo ba jaaxal moom mooy. arrêt waaw mosu koo naw. arrêt wu parrainage bi mosu koo nangu arrêt wu parrainage bi ba mu yegsee fii. cour de justice de la CEDEAO état du Sénégal contre union sociale libérale ci ñu njëkk a génn ñoo ci la bokk ne Sénégal dafa moom boppam waaw moom gëmul ci seen CEDEAO ba lu ñu wax tey nag loolu moo ma jaaxal mu ne day dem CEDEAO mais bon en tout cas CEDEAO ñëpp la fi nekkal mu dee àdduna dox na dox na ba mu yegg si foofu ba xelam dellu dana gis ne tey fii Euh, ordre communautaire bi rek moom mooy mën a défendre parce que li fi lu ko dal nii mos na dal ay député Togo ñu saisir cour de justice de la CEDEAO ñu jox leen dëgg ñu intégrer leen donc bu dee moom ci ñi waroon a dooleel cour de justice boobu ci la bokk moom bu leen joxoon cër bu ñu waroon a am non pas parce que faruloo wala am nga li nga arrangé peut-être tey nii bu ko joon ci diir bu gàtt mun na am intégration ba léegi itam mën na fa dem loolu possibilité la mais gis naa au la affaire parrainage bi xalifa Sall wax ngeen ko jox nañ ko fa dëgg mu ne Sénégal du ko jëfee moom moo nekkoon ministre de la justice jox nañ ko fa dëgg mu ne moom duñ ko jëfee Sénégal dafa moom boppam d'accord Macky Sall tam mooy buum mooy buumi donc beneen bi aussi luñ ciy yokk moom mooy nee day dem Euh, Nations Unies. Nations Unies gis ah nañ avis groupe de travail de Nations Unies sur la détention arbitraire. bu ñu rentoon ci Karim Wade. Ah moom ba mu nekkee ci affaire yi. dafa ne que donc Sénégal. àndu ci du ko jëfe mm-hmm. donc mm-hmm. jàngat bi moom mooy. loo nekk. kon Aminata Touré fa muy teer. non non waxuma moom au-delà damay analyser rek. parce que du moom kese posture ah. politiciens yi souvent mm-hmm. day changer en fonction des intérêts. moo tax looy def. mais est-ce que loolu aussi war naa. na nga koo gëm d'une certaine façon. booy def est-ce que nga xam ne waa opposition bi am nañ ko ci ah, nag beneen opposition man man moom fëggagul sama bunt peut-être. <laughs> Euh, euh. waa ñun moom euh, àdduna du dara yooyu yëpp jàngat la rek. Hmm. jaar-jaar la hmm. ku ci nekk ki nga xam ne yàlla def na ba sa xel dellu si. wala yow jàng ci àdduna lu gën a am solo moom mooy ëllëgu Sénégal. Hmm. man loolu laa jàpp. mais metre ëllëgu Sénégal yaa ngi ci bàyyi xel Sénégal di jëm ci élection présidentielle yu 2024. Ah. Euh, candidat nga wala da ngay gunge gaay